الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Cette fois-ci, kàddu yi may wax jigéeni Sénégal yéen ko moom je parle directement avec la femme africaine yéenay suñuy ndey yéenay suñuy jabar yéenay suñuy sër ci yéen kët yéen jur suñu njaboot dama ne coono bii coono bii ñu teg Ousmane Sonko te dara du ci dëgg dara du ci dëgg ngeen di ndey defe woon naa ne ab manifestation lum gàtt gàtt war ngeen koo def pour aar seen doom yi ci jigéen ñi nga xam ne lii ñu leen teg du dëgg du yoon Ousmane ab jullit la Ousmane ku yiw la Ousmane ku baax la Ousmane dafa jóg pour tabax réew mi coono yu nii coono yu mel nii ngeen jël ko teg ko ko teg ko ko defoon naa jigéen Sénégal yépp daañu daje place de l'obélisque di dëgg Ousmane dafa am nday Ousmane dafa am baay Ousmane dafa am mbay doom Ousmane dafa am jaboot Ousmane dafa am wëllëre Ousmane day dem ci jàkka yi di dem ci dëj yi di dem ci rob yi Ousmane dafa jóg aussi pour jàppale réew pour ñu am tabax ko tey doom ju mel nii yéen jigéen ngeen jur ko aji saar kenn xamul fa mu bàyyi ko ci àdduna di ko bëgg a yàq àddunaam yàq avenir am defoon naa ne du mbir la moo xam ne góor ñi waruñu ko lijjanti waaye yéen yéen a ko lijjanti déglu na nabu nabu daas nabu daas li wax lépp dëgg la li wax lépp dëgg la mais il faut ngeen jog yéen jigéen ñi régler situation seetaan mi yàgg na nii kilifa yi seetaane yéen nday noonu ngeen seetaane organise wuleen leen organisé vous organisé vous pour coon yi ñu teg seen doom yu góor yi te dara def ko ay caga jigéen ñu bon ñoo xam kenn toppatoowu leen di leen toroxal yéen ngeen jóg pour défendre ces hommes la góor ñi sonn nañ ab liggéey amul ci réew mi kenn ku ci nekk sa doom am ponkal la waaye mënulu la dara sa jëkkër day xëy ba dem du teg dara ci taabal ji yow yaay xëy wuti dugg kon ngeen xam ne góor ñi lott nañ toqi nañ sonn nañ dàcc nañ te kenn defu leen ko lu dul ay yenn jigéen ñoo xam ne baaxuñu ak yenn góor yoo xam ne riba képp moom lañuy dunde dundee moo ñi nga xam ne ñooy combine ñaare di sonal seen doom yu góor yi sa doom ak sama doom ak doom yëpp ñun ñëpp ay sénégalais lañ boo réew mi war koo defar war koo defar ànd war koo tabax tey seen doomi jigéen buñ rocc ko di accuser ay viol di fen xale yu jigéen ñi dem nañ ba léegi dañ lay téléphoné képp am sa vocal wala ñu manipuler vocal bi ñëw di la menacer bëgg a tas sa kër dama siif dama tëddeeg dama def nangam te xale yu yéen leen jur yéen leen jur génn leen ci mbedd mi ngeen manifester ko mu naqari leen Afrique gépp ànd ci jàpp ak yéen ce n'est pas seulement défendre les droits de la femme mais aussi défendre les droits de l'homme góor ñi il faut ngeen jox leen cër respecter leen waaye ci seen faiblesse ngeen di aw pour leen racket loolu dafa war a dakk am nañ ji souffrir am na ñoo xam ne sonn nañ trop ay enregistrement yoo xale yu ndaw leen ko def di wër di ko teg ci rajo yeeg di leen ci menacer ak di tas seeni kër loolu yéen day yéen a ko mën a lijjanti mais pas la justice sénégalaise une justice corrompue une justice boo xam ne dafay nekk justice politique une boo xam ne Macky Sall képp ko intéressé une justice boo xam ne xale yaa ngi fi dell ci kaso bi te defuñu dara dama ne ak mboom bëggoo sàcc man ngaa tëddi at ci kaso bi waaye man ngaa sàcc cent cinquante milliards dem sa yoon xool leen Farba Ngom xool far Farba Ngom sàcc bu mag la Mamour Diallo sàcc bu mag a mag la Bougangeli ay faux billets moom la yor ak business ay passeport mbay Ndiaye ex ministre de l'intérieur ana doomam ana doom ji ay faux billets ci la nekk di liggéey kan boo ko waxante dëgg waaw kan boo ko waxante dëgg waaw boo demee fii ci waa kër Thione Seck yi kenn ku ne xam na ko kenn ku ne xam na ku dëkk dakaar xam nga ko booy ci faux billets ci la ñu nekk di ko dóor looloo am ci lañ jàppoon seen bàyyi ñun ñëpp bokk ci ñu ko doon jàppale man bi ci ko doon jàppale la waaye loolu dafa war a dakk dafa war a dakk réew mépp yàqu na Cheikh Omar Diagne xale yëpp ci kaso yi yéen ndey yi seen doom yëpp ngi ci kaso bi Cheikh Omar Diagne deful dara dara defu ko Kara Mbodj deful dara sama doom jooju Dramé deful dara dara defu ko dara dara defu ko Ousmane Diagne deful dara Oumy Dia moom ñu téye deful dara te jigéen la moo yéen jigéen ñi bu ngeen génn bu ngeen génn wallu seen doom yi gàcce bu amee yére ko bu gàcce amee rek ne leen biir ne seeni loxoo nga ci nit du seetaan toog ne pat gis luy dëgg li suñu borom wax moo mooy am te góor ak jigéen la ko yemale yàlla moo ne soo gisee loo xam ne euh, jaaduwul wala mu sewa mbaaba kumba bu jëm ci ab jullit walla nit walla nit wala mu ci mala yow ci sa bopp nag nga jóg kàttan goo am nga def ko ci bu sa kàttan jeexee wool say bokk ñu jàpp ci bu ci say bokk mënu dara génnal ci biti yuuxu askan yépp génn pour lu bokk jàppale te coono bii bii góor ñi nekke ñu jàpp leen def ci kaso bi te defuñu dara Ousmane Sonko ñu nangu passeport am te kenn def ko ab caga boo xam ne day wër di taxawaalu te Ousmane doon un panafricaniste boo xam ne dafa war di génn dafa war di génn am réew boo koy laaj war nga am ay liberté pour man di génn di xam koy waxal ak koo dul waxal ak looy jëli ak loo fi indi bu Macky Sall nangoo passeport am ngeen toog seetaan kooku c'est pas normal aux États-Unis jigéen ñi ay ligue lañ am yoo xam ne dañuy défendre góor ñi yéen ngeen di ay jigéen jur muy ay jullit doon seeni doom doon seeni jëkkër Macky Sall benn nit benn nit baadoolo bu tekkool ñaari dërëm jël seen doom yi def ci kaso bi ba fees dell di ci kër yi tëju sonal nit ñi ci dépense sonal nit ñi ci dépense jox ma jox ma joo xam du dakk moom ngeen fi nekkee te du ngeen jóg mukk mukk xam ne seen doom yi sonn nañ bu ngeen demee ci école bi seen doom yi téeméeri élève ak fukk la ñuy sol ci benn classe yéen ndey yi du ngeen dem ci école sax jéem a xam lu fa xew ça vous intéresse même pas fii réew mi jëm ak ni mu jenge dafa ne seen nit ki ci bëgg a taq yéen ak yenn kilifa yi diini yi ne pat yéen a yem kilifa yi diini war na mën a jóg wax waaye li leen intéresse seen gàmmu seen màggal seenu cant wala wayaan wala riba joo xam ne dañ ko jël loterie nationale di leen ko jox loolu képp lañ fi nekk nit ñi dofuñu danoo jàng tubaab xam li xew xam histoire u Sénégal xam ni mu tëdde kon fi dóor marto xam nañ ko ñaari bokk yee tax rek ak bokk gi moo tax ñu fàtte ko fàtte lu ko mais bu ngeen defee da ngeen a mbër a muus nit ñi booy bu ngeen dem tëri waaw bis na tey daal yéen jigéen ñi bu ngeen mën a dajaloo surtout les activistes féministes yi yéen a war a jóg xam ne góor ñu sonn nañ am na ñoo xam ne lañ yoroon lekk nañ ko lekk xale bu ndaw ne ci koñ bi di leen téléphoné naan damay dem police ak yaa ma siif ak yaa ma def nangam ak parce que gars yi ni jël sa vocal bu ñu jël sa vocal def ko ci computer bi changé ko di wax mi la yaay wax fekk waxoo waaw vidéo ni jël jox ko benn avocat mel ni Alla Diouf Alla Diouf contacté la ah ne la buñ dem ci yoon jëru ko ndax ñun ay bokki neen lañ fekk dañuy fen waaw loolu liggéey dag leen ko jox day dem soo sa waa kër duñu lekk caga ju mel ne Adji Sarr ñoo fees Ndakaaru waaw ay enregistrement lañ yor di loolu police xam na ko waaw buñ jógul ci seen bopp te yéen jóguliñ ci seen doom yi da ngeen torox te da ngeen jooy bëccëgum dara kàmm gouvernement bi faalewu leen ku ci liggéey ba màggat bu la sa doom yorul torox nga dugg leen ci kër yi kër yi ay màggati ci nekk ay màggat yu fees dell gouvernement bi xalaatul xalaatul ah dugg ci biir kër yooyu jox leen taay la nool wala mu jox pen kilo wala mu jox garab yoo xam ne pour mag ji la gouvernement bi jëriñu leen dara mag ñëpp naax na ñu ngi tëdd ci ci ci kër yi ah amul benn benn si benn programme bu mairie am ne baal ma dugg ci kër yi xool màggat ñi wala mag ñi ah yéen jigéen yéen ci jàpp di toppatoo seeni ndey ak seeni baay jóg leen xale yi ci kaso bi ngeen xeex ñu génn Ousmane sonk mi tàggalee leen ko ak Adji te passeport am ñu delloo ko ko mu dem liggéeyi lii fi nekk dañ leen koy wax yéen a suñuy ndey nag bu ngeen jógee baax na bu ngeen jógul yéen a xam. waaye di leen wóor ne seen doomi yoon wi aw coono torox tànge lañ aw te dara mën leen dara dama ne dara mën leen a tee waaw parce que Macky Sall décision jël dana jël réew mi sarax ko français yi ay bandi comme Me El Hadji Diouf ak ngeen bàyyi lu ñuy manipuler askan bi pour lan génn leen daje place de l'Obélisque na Macky bàyyi prisonnier yépp yéen képp ko na Macky di jog ubbi kaso bi génne Sénégal yi ak doomi jàmbur yi mu tëj ci tàngoor wi benn néeg mu tëj ci ay téeméeri doomi aadama ab classe bu xale yi jàng mu sol ca téeméeri élève ak nàngam joxu leen benn respect benn cër joxu leen ko Ousmane na am non-lieu ba pare wañ waññu ko porter plainte Adji Sarr porter plainte xam ne ñoo ci bokkoon Me El Hadji Diouf dañ ko yóbbu parc an yeew ko ca Rabi Allé lañ ko yóbbu yeew ko fa du nit yàgg naa leen ko wax waaw Mamadou Diallo mii du nit du nit deret jee bon kii ay maamam dama ni gétt gu sàcc ni ay gétt ba tey ay gétt yeewu nañ ko ay maamam moom tey ngeen bëgg a jë dama ni jóg ci seen bopp soxna yi jóg leen te ngeen mooyoo mooy ne télévision may mun a ndiir mi ndaw si kii du nit kii franc-maçon bu jigéen la wala xaw ma lu mu doon waaye kii moom xaw mu gisee wala déet waaye jëkkër mu ngi ci problème kii moom kan ko teg fële dafa xeesal ba quatre ton la quatre ton quatre ton je l'ai vu à New York j'ai refusé pour serrer ko loxoom mu kuro makki parce que dere xeesal bëgguma mu topp ma man waaw femme bi xamul dara day intimider ak ay expression ak di c'est un complexe la waaw ñoom ñaar ñëpp ñu ngi nii kii déggul tubaab déggul anglais déggul dara déggu ko wolof sax dégg ko bu wax day appaat comme kaña day appaat comme mbaam xoox ñu mel ni ñu teg ci télévision bi ah ñuy supporter aji saar xeet aji nangam àlla juf di deete fii naan dañ ko siif dañ ko def nangam yéen ndeyi ngeen toog ñu tuuma seeni doom ah François Hélène ma xam ko muy ak xola Allemagne la almaañ la jóge man maa ko jëkk Allemagne waaw man 1977 Allemagne la ma fekk ma jàng fa doone def naa ko fa avant mu fay dugg bi mu ñëwee fi Amérique caga caga dama ne ak màggat la takk ak màggat la takk pour di ko racket ak màggat la takk pour ami kayit kuréel ma ki ma xam ko Las Vegas muy bandi bandilu kii war naa doon député kii ci samay tànk la wàcc ma xam leen ñoom ñëpp ak waa kër Doudou Ndiaye Coumba Rossi ñu ay jàmbaar di liggéey ba ñëwee. moom mu topp góor jigéen yi kuro Macky ah jasaak kii kii nga xam dafa teeñ ba yàqu kii war ngeen koo déglu moom ci boppam yiwul normalul booy maalaw kii booy maalaw mi wutaat wutaat ko ay mbaam mu dem sàmmi moo gën dellu ci ay mbaamam moo gën a wér waaye la tubaab bokkoon def na ko maa ngi dem waaye yéen buur yi ñii napp napp la ko bés ëllëg daañu toog ci kaw tribune bi saaga seen ndey moo tax mu indi lu booy maalo bi mu taxaw di saw ci suñ kaw ce petit con de rien du tout ah, du ngeen wax dëgg Coura Macky ana lu muy liggéey Amérique ah, booy bii xam naa ko dama ko estimé woon parce que am na langage boo xam ne am na pédagogie ma def day ñëw pour transformer le Sénégal mu dikk maire bi dugal ko ci ay conneries ah muy xale boo xam ne Californie am na expression mën naa wax te ma yëg ne jeune de jeune li yàqu ci réew war na koo xam ma doon ko supporter mais ba ma déggee mu dugg ci fi conneries yi damaa rus Kaliphone gis nga xaalis billahi wallahi bu ma neexoon bu ma neexoon Coura Macky du doon député maa ngi doon député bu ma neexoon bu ma neexoon laa la wax de billahi duñ la xam yow parce que man xoola damaa xam Macky Sall inside ak outside kii ci yées nag kii dafa fende dafa accidenté ci ab taxi la xoosu rek pour mentir pour mën a daw dem Amérique ñii naan dee na ak deewul dafa accident gara fekk day fen jël nay bagaasam daw ma nga New York waaye dinaa la fa fekk doo nitu dara Gabriel Kane li ma gën a naqari nag niñ la jiitale yóbbu la ci sëñ Muntaxa nga kaalawu toog mel ni wàlli wu jigéen ah xoola si yaramu neen bi man ma xam la taati neen ngay di soli silip doon mën a kenn Pierre abandonné son mari en France sàcc doom ji daw dem dakaar nim mu fi demee xam nañ ko François Hélène du dara ak màggat màggatu tubaab boo xam mu ak màggat la takk di ko nax di jël alal kër gi tubaab kër gi tubaab moom mu indi fa ndeyam indi fay doom kër gépp nun xam nañ la tey boo ñu ko naan da ngay jàppale ay jigéen gi da ngay jàppale ay saat da ngay fen waaw Kuro Macky mi ngi nii Las Vegas muy bandi bandilu man maa la gën a xam Las Vegas casino yi fa nekk billahi maa la gën a xam ba ma ci dugg bu yow génnoo génnoo senegal boobu yaa ngi tëgg di fecc say bala foog lu kenn xamul waaw kii kii war kii war naa dem sëñ Mountakha kii ndaw si ah ñuy sikkar na sikkar mu toog ah bi ma xam ko jëkkëram di ko wër mu jël doom bi daw ah met El kii kii ah ruube Sénégal ba tey jaamu yàlla suñu mënatu ko fi parce que kenn ku ne la nga war def defoo ko ah Françoise Hélène dama ne jërul jërul ñaari doomi màngo jëru ko waaw dóor jàll loon dóor jàll dóor jàll ba mu farug màggatam nag toog te mu ngi doxal ay ndoxom ci suuf mi ngi defar ay mbiram ci suuf dof bi nga indi assemblée nationale nga xam ne xamul dara kura billaahi billaahi mënta bind Marème Faye Sall mënu koo bind jox ko bi nga fay ne ko bindal ma Marème fay Sall ah sàcckatu mbaam bi nga xam ne maalo bi kii kii man xamu solo moo ko wax Aliou Sow maa noonu noo ko def noo ko def waaw noo ko def nit ñi tekkul dara ñoo war ci kaw réew mi war ci kaw góor ñi ñun suñ doom yi suñ doom yi ñu ngi taxawaalu ci mbedd yi doom yi caga yëpp am bourse ñëpp am bourse borom loxo yu wert yu sokolaa yi buñ jógul ci réew mi te jógu leen ci non seulement yéen mag ñi da ngeen tor toro ngeen ba pare màggat gu ci màggat ba à la toog sa kër gouvernement wa du la fekk jox la keesu suukar sàcc si yi ak wëyu yi ne ci rajo yi ak télévision yi dama ne ñoom li liñ leen jox kepp mënoon a tabax école yi ci dëkk bi waaye duñ ko def ay maam góor jasaaka mu teeñ mi ay wëyu salopa ñi nga xam ne dara ay addu saw ñii leen jël teg ci seen kaw dara digal Ousmane Sonko dara digal gor ñi waaw metti na trop ndax xari na ma lool dama nga ndaw si war naa seet sëñ Muntaxa kii war naa bi sëñ Muntaxa di defa toog kii ma xam ko caga buy taxawaan taqari pap sobe ñu jiitu ko yóbbu ca sëñ ba du nit dara ne itam kon maa ngi jégg lu baax a baax yal na yàlla suturaal yal na yàlla suturaal xol fatt ko waa xol bee fatt ku la makki kii kii ma xam ko góor jigéen yépp këram lañuy ñuy daje ku day wàcc ab lalam jox ay góor jigéen day génne néegam abal ay góor jigéen man du ma laal loxoom bu mu nuyoo damay damay du mooyu waaw du nitu dara lii ma neex na mooy li am waaw le defal non lieu atte ko non lieu mbir mu jeex Ousmane dem yoonam te porte plainte moom itam parce que liñ ko def du dëgg di yoon naqari na Sénégal gépp kuy jigéen war na laa naqari peace and love peace and love man da Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla nañ buur yàlla suturaal te indi jàmm ma xam nga jóg jël ses responsabilité Ousmane is not guilty